pourtant li yàlla wax buñ ko defoon rek noppalu alxuraan a wax da du samay wax man waxu alxuraan laay wax. alxuraan nee na ku nekk nañu xool façon bi nga bi nga mën a composer ñu may la ko gis nga ñaar ñu mën a composer soo leen boolee duñu mas a am problème kii dafa am diine yéwe dawal ca soxna kayra mu xoolal la ca ñami jàngal xale bu yiwe may la ko ñoom ñaar ñu composé parce que ndax ku góor ki daa yiwe kon kam mana andal moy jigen ju yewé ni mom alquran néna ñaar ñu yewé ñoy and ñaar ñu wul nak ñu bolé len dem katu soirée ba ak kay fanan ci discothèque ba nañ len bolé su ki juggé ci discothèque ba ñew ni diwa doon teug ki ni man tam fama fama juggé tojna bu ñu ñëwee ñom ñaar daje yalla ko wax ku ne nanu xol li ngay dund ko koy dund ñu may la ko nga takk ko problème du am waaw ñaari sanggaran sangara nga bolé len problème du judd parce que ki day nan bitel bam xaj jox kenen ki mu agalé ko ciow du jib waaw jigen ji nan sangara nañu ko may goor guy nan sangara bu ki yoto whisky bi ki yoto ba ca des wala bu dé ben bitel lañ am bu ki nané bam xaj jox ki ci des problème du am waye jël jigen ju mëna jaamu yalla yiw nga may ko jëkkër joo xam ni du julli la muy mujjee mooy ah am na loo xam ni day du jaamu yàlla moom bàyyi fi sa jëkkër nekk fii naan da ngay julleeg di wird billaay toppatoo ma moo ko ëpp solo waxi dof toppatoo loolu xel mënu koo nangu da gis jigéen ju yiw ñu may ko góor goo xam ni bokkuñu ñoom ñaar lu ñuy dund yow sa jabar li mu xam mooy yeewu fajar julli yor kurusam di wird di sol jot di muru nga nan ko mata ah, man kay leg ma tak ñaarel yi xawma ko muru bani malaj ñaari bat ñet nga yor sa kurus gi sa kurus gi topato mo moko upp solo yalla ni billahi limi def mo upp solo li nga bëgg waaw parce que wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al yaqin la yàlla waxoon yeneen bi jaamu li yàlla ba keroog ngay faatu yow ki di jaamu yalla nga ni ko nala bayyi top say bëgg-bëgg yow foko tek nee ma fii ci bakkan nga ko teg moo tax diggante yi dafa mat di bàyyi xel ku ne rek ka nga war a am ñu may la ko waaw mu jeex tàkk. mas naay seetaan benn émission ci benn tele gis benn femme boo xam ni leget la yor di tëgg tëgg yooyu tëggu leget yooyu jëkkër ji yor beneen affaire bi bi ñuy gitaar ni toog ci wet gi. ma ne alxuraan a dégg jamono ñaar ñii ñoo war a ànd kii di gitaar kii di tëgg waaw ñaar ñu mën a ànd. waaye am na koo xam ni boo ko mayee jigéen ju yiw yaa ko rey lu ne dana ko ko def loo waaye kuy wut jabar ko ne da seet yow jikko ji nga yor nga tànn jabar am jikko jooju waaye kuy wut jëkkër ko ne da ngay seet mel noonu ndax ñi war a ànd la ñuy boole gis nga dàll yii ma sol fu ma neex laay dem waaye du summeeku du wadd xanaa ma summi ko wala boog mu rëcc mën naa def nii du dem xam nga lu tax mooy dàll yi mooy sama polentiin waaye bu ma jëloon dàll yu ndaw a ndaw a ndaw ma sol ko bu ma ko solee du dugg bu ma jëloon dàll yu ëppit ma sol ko bu ma doxee mu summeeku kon da natt sa tànk ni mu toll nga sol dàll yu tolloog moom mooy ñu baax ni nañu leen boole ak ñu baax ni ak wuyu yi ñuy rayante rek ñu baax ni di teralante Seydina Muhammad dafa wax ni mboolem koo gis mu denc soxna génnul ñeent yii tunkixul maratu arbaa li jamaaliha wali maaliha wali xasabiha wali diiniha yonent bi nee na koo gis mu takk jabar ci ñeent yii la takk da koo takk ngir alalam wala ngir taaram wala ngir juddoom wala ngir diineem yonent bi nag ni déglul ma tànnal la man Moustapha mu ne fas far bi bizaati diini ay waay boo demee ba war a takk jabar takkal borom diine Momadou taar day jeex loo am ci taar bi sa ngi ñëw dootoo ko dese boo amee 40 ans sa taar di wàññeeku nga songu 50 ans sa tar di ko bo amé 80 ans deseetoo tar alal day jeex lo bari le bari le juróom ñaari mètre percal parfum misk ak wëttéen mo lay top kon alal saxul waye diine nak moy and ak yow bu dugg bir bammel ta du deñ yonent bi ne joxagn na la borom diine boy tak jabar takal borom diine waye nga gis ni kon bu fekke ñun góor ñi royatu yonent bi jigen ñi royatuñ sayyidatuna Khadija royatuñ ko parce que nag sikk bi ci ñaari boor yépp la doo ko jël mukk féetale ko góor ñi doo ko jël mukk féetale ko jigéen ñi jigéen ñi sikk nañ góor ñi sikk nañ ku la ci expliquer sa kaawu moroom nga nga yaakaar ni kii nekk ci dëgg te Mamadou léeg-léeg nga ànd ak nit mu wan la loo xam ni ca commencement ba wanu la ko woon ndax na la trompé la ba nga dugg ci moom mu wan la jikkoog ndax jikkoog borom pax rek te am na loo xam ni kenn mënu ko nëbb moo tax léeg-léeg nga nekk ak nit ba mu yàgg gis ci moom ay jikko yoo xam ne daf lay jaax tey li yàlla wax ci ni góor balaa muy denc soxna loolu dafa war a daje ci moom ak bu dencee soxna nan la ko war a dencee amut jigéen bi ñuy tànn loo tam na mu waroon tànnee tey tey ñun ñun xale jigéen ñi xale jigéen bu ñuy tànn na na na sol peew mhm. daal seere mu raw bopp ba takk jaaro duutuñu lépp góor de li lépp def crayon yow ba saf saf góor ñi léegi ñoo daal baw moo tax maquillage yëpp góor ñi jënd nañ ko kooku la ñuy tànn tey même bu yorul dara baax na xoolal tuba ji na wàcc buy dox di yaa ba nga yaakaar daa problème ay tànk fekk dara néew fa man am na benn xale boo xam dañoo daje muy ba mu bondee ba yaaba pour man wallahi la fañ la ndekete bond bi metti xale yooyu ñoo la ñu bëgg ba pare nag boole ci di leen dóor maanaam ku soxor lañ bëgg. Mhm. gis nga xale yi maa ngi lii giñal ci yàlla faroo soxor lañ bëgg. dañ koy wax man ku lay dóor man bëgguma koo xam ne asalaamaaleykum. Mhm. yambaar wi kii nee na salaam. Mhm. bu ko. da nga eh, yow tëll mbéj. Ah, ñu njooy nga naxaar leen ndeysaan la ñu sàccee ci seen yaay ñu jox la ko xale yi dañ lañ bëgg ak ñoo bëgg lu bon <laughs> donc boo àndeek noonu ci góor mu koy gis yow gis ñàkk fayda ci yow gis yow amo personnalité gis yow bugo dara ci sa aduna ba paré heure bu la soxla nga ni ko yaay bañ yaay bañ yaay nangu ci yow la des noko ko foko foo yalla bëggee yàlla waxu la woon ah, loolu de ngeen and ci lolou ba mu tàkk laa parce que li ngeen waron dund ci bànneex yeen ñaar tay ngeen di dugg ci sey bi dunu ngeen ko dem ngeen hôtel dem ngeen fi dem namul ci yow dara parce que lu mu bu war a nam ci yow rek jox nga ko léegi boo takkee un mois ngeen de mu sànni la saaga la sëy ba tas. parce que yow xale bi bi ngay dugg la la waroon ci sëy ba loolu nga def ci biti sëy ba moom ku góor ki def amul jikko yi nga xam ne moom mooy jikko yi sang. bu ko defee su ngeen duggee ci sëy bi un mois deux mois rek mu tas ba pare léegi ay xale ñuy sëy ay xale ñooy sëy ndax am nga appartement ndax golé gi déna xam nga golé gi. Mhm. mooy go gore mhm. sa yu jëkkër mhm. jur ko yar ko. def ci mom nga ni jamais duma dëkk ak mom ndax golo ga nga fa. loolu lañuy wax xalé yi dañu tay war dañuy faral di wax nan sax euh man buma goor di tak dama koy lañ ndax pa beeg mère baangi dund bu dee dañuy dund mané ko déma koku bu baax la mais ñi doy war dana ndax golo ga nga fa. bu fa nekké duma sey appartement toyé moi wa légui yo xamulén ben expérience ay xalé ngeen. ngeen yaakaar ni sëy bi je t'aime aussi la fekk sey dafa am ay réalité ay étape la mhm. étape bu ngeen takkante rek léegi génn ngeen ci je t'aime na aussi mhm. namante ak yooyu mhm. jeex na léegi beneen réalité moo ñëw léegi chaque jour yéen a ngi gisee yéen ñaar kenn du namm moroomam dina am yuy xew parce que la nga daan namm di yàkkam léegi mi nii ci sa kanam te doo ko lekk doo ko naan dina am leneen la ngeen di dund léegi bu nekkee trois mois la amul mag bu leen jege amul ndijaay amul sœur amul yaay amul papa yéen ñaar kese un mois ngeen rayante fase naa la demal nga jël say bagage dem. ku ci takk jabar takkal ku la nopp jigéen ju ciy sëy ji sëyal ak ku la mooy priorité nopp dafa am solo de nop te te te te roqee boo dof dof loo ba sa yëg koo nobul bu lay woo booy xool appel bi sa xol bi mooy mel ni luy bax boo nee alu alu waaw damaa jàpp maa ngi ñëw noboo ko da lay fat ngay nekk ak moom mu mu tukki nga kontaan mu ne la allo damay ñibbi si mercredi sa yaram bi mel ni lu summeeku moom de neen day ñëwati mais xam naa du fi yàgg sax kii bu ñëwee sama jàmm noba fa manqué mais bu nopp amee roqee sa jox na bu la woowee boo nee nii sa jëkkër oh bébé chocolat waay gis nga parce que nobel dafa am mais ñaar ñu nobantewul seen waxtaan du yàgg allo an sama yaa mi ngi fi du ngeen togg tey ceebu jën an sama mag bi wàccagul an sama tante mi ngi si biir naka waa kër gi ñi ngi sant bu baax waaw euh, sawa va waa kon ba suba ok <laughs> ñi nobantewul ñëpp nii lañuy ñuy waxee ak seen jëkkër yi yàlla ni wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma mbëggeel daa war a am ci diggante yërmande dugg nit ki boo ko bëggee te gëmewoo ko fu mu la yóbbu nga dem sëyal ko jigéen bu la bëggee day toog muñal la nga indi soom bi mu lekk nga indi mbaxal mu lekk bëgg dafa am solo moo tax bu leen forcer kenn ci sëyeel ak diw mais léeg nga dégg famille yu fuy naan famille bi moom famille bi moom kenn du ko génn moom waaw fii moom kuy takk aaw moom ci famille bi booy takk ñaareel nag takkal ko la neex waaw léegi ñaareel daal moom moom ku la neex ñaareel moom existé wul mais xam nga problème bi mooy souvent buñ la forcer ne takkal ci famille bi yow ki ngay takk doo ko nopp mais da koy def sa jabaru yaay takkal ko sa yaay mais doo ki nga nobanteel waxante ngeen lu leer sama yaaya ma fat nee na aawa sama néegu takk naa kenn yow kuulal rek may ma un rek un nag ñu ne Oustaz Modou Fall lay takk jabar ñu waaw moom bi mu fi takkee jabar <laughs> kee da koo xaarloo te heure bi jot na te mën mënatu la continuer xaar bu yàgg bi léegi kiñ la kiñ la pu kiñ la imposer pour nga takk ko ak kila la sa xol imposer pour nga takk ko ñaar ñii du ñu yam wàccuwaay kii kii xola kii xol bi moo ko choisir kii sa yaay moo ko choisir